Ah!

Hallelujah. فرج دعوت وإني سوء mu ko بها ديوان sat yooyu yëpp la ko sotti sotti bu bari daara ju nekk mu yóbbu ab magnétophone yóbbu fa ay kaset ngeen di ko déglu mu sonn ci lool bu ñu mësaan toog am ci kuy jàng koo xam ne mëkkulul daaj bi dangay gis mu woo ci biir mbooloo ma defloo ko leneen baat yépp lay xàmmee sonn ci lool loole it dakoo ko ci sëriñ bi ndax boo déggee ñu naan waa kër sëñ Masamba sëñ bee leen tànnoon boole leen ak sëñ ma Masamba kañ daa wax Modou Fall buuba wax nañ ne sëñ bi moo yónnee sëñ ma sàmba kër sëñ Daaru Asan Njaay moom taalibe sëñ Daaru Asan Njaay la mu ne ko da ko da ko yónni rek ne ko na nga doxantu mu doxantu ba àgg foofu dékku muy jàng mu ne ko xamal ko ne ko yow day damaa bëggoon ñu ànd nga dem ci sëriñ bi mu ànd ak moom ñëw ci sëriñ bi ba mu jàngee ba sëriñ bi dékku sëriñ bi dékku ne bala saa borom di bind jàng sama xasit yi taxoon mu di la bind loolee continuer di dox di dox di dox dañ ko daan jàngal njël di ko jàngal marax kon dafa mel ne yéen nit ci njabootuk sëriñ bi gépp yéen la ci yàlla defal tawfeex feex nun waa kër sëñ Saaliw ñu amaat lu mel nii ndax day liggéey bu jafe liggéey boo xam ne boo ci xasee ba jëm doo dégluwaat leneen gone yaa ngi nii dama leen fee wax ne leen mbooleem kaset bu ngeen daan déglu bu dul waa kër sëñ Saliou na ngeen ko sànni <coughs> bu leen ko dégloo déglooti amul benn bu leen di déglu ndax bu ngeen ko dégloo di ngeen di bëgg a teg ngarale du ngeen dem fii du ngeen dem fii tolloo day yàq fu ñu leen dégg rek na mel ne waa kër sëñ Saliou ñooy jàng la taxon ma tegtaloon leen lolou ngeen don jang temps yep ci lay nek ma ngi len di jox ndigal it ñuy jokkoo ak yéen di len seet si di yok seen xam-xam ci jang bi. manam sey ñi ngi jégg lu baax señ bi dañuy manam kurel bi jang bi ñu def lañ daa bëgg nak ni ñi jàngé ñom ñu fexé ba ñuy jàngé mo taxon mu ni nañ. boo ko ànd jàng bu ñu noppee won leen won leen bu amee ndëng te ñu leeral leen ko bu lépp baaxee ñu leeral leen ko comme nañ koy defi sin biir rek yoon woo nag lañ leen di teg rek nee na tamit ñaareelu daajub jës bu wala ma faatiwul ji naan bi ñoom daa mel dañ ciy am jafe-jafe moom sëñ bii moo ñu gën a xam comme moo ñu ko daan jàngal daa bëgg rek ñu ñu ñu xeetoo jàng ñekk ñenn ñu nekk am na nu ñuy jàng waaye comme ñun ñoo bokk genn kilifa war nañoo mën a bokk nu ñuy jànge ba koo gis ni lii mooy njàngum waa kër sëñ Saaliw ndax ñu ak ñoom ñëpp waa kër sëñ Saaliw lañ léegi nag kon sëñ Mor dañ di daaj daaju daaju tawil bi rek buñ daajee kii aw ñu xool nga xam da ci kenn buñ noppee mut sàmm moom <laughs> wala wala mut sàmm li xayri سجدت لنا الأعداء قبل مجاهدا أغادب من للهدى كان يدلس زار رسول الله لقاد المنى so in so. Zabirda على الياقوت كما كان يلفظ sang yu baax yi boo defee kon ñun dañuy dégg dañuy dañuy dégg ñoom niñ daaje boo xoolee ni ñuy tibbee araf ak kii fi mu ko fim ko tonto dafa jara dafa jara bàyyi xel kii fi mu ki doon daaj ñoom dañoo waroon a baamuwaat sax wooy maam tontu li day day day day day day day bokk ci daaj bi moom benn moo koy moo koy rësal ndax njàng bu xasee rës day metti <coughs> bu ko defee dañuy bàyyi xel ne ki kii daaj bu ne si la liya safaha mujirul musassisu ñu bañ a def waxaab lool ñu bañ a def loolu bu ko defee kii ni mu ni mu daaje dañ koy déglu ci téléphone yi comme li li ñu enregistré bu ko defee bàyyi ci xel baax a baax ndax loolu moo lay gunge ba ba ni daaj biy jeexee ci loolu rek nga war a tibb dañ koy tibb waaye kenn du ko du ko du ko yoon bu ko defee ñoom ñoom liñ def noo am na solo lool nag am solo lool bu ko defee sëñ sëñ sëñ Mourtala nag moom baat bi daa neex ba nga xam ni moom léeg-léeg day indi yoo xam ne nii waaw day day day faral di kii nii waaye li muy def daa am solo nag boo ko boolee boo ko boolee baat bu seeñ day day day day ñëw ci njàng lool day baax lool benn béy ci ci tawil bi rek daanaka mën nañ cee leeral li ñu bëgg a leeral lépp kon day mel ne buñ ñu daajee bëru wàcce xam naa buñ buñ ci dee gës moom mën nañ cee sori lool waaw رب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مولد صفي boo gisee bi da ci am solo fi ne rek ma am da ngay da ngay taxañ wasixtu bi rabbil arsi sil joodi wal fi ba teg ñii daal di ñëw maal mustafa wallahu li muxlidun safi dégg nga nga bañ a def wasixtu bi rabbil arsi sil boo ko defee rek jàng mi day diib waaw boo ko defee da ngay loolu وسقت <laughs> برب الحرس ذي الجود والعفيف وسقت برب العرس ذي الجود وال برب العرس ذي الجود والعفيف وسقت برب العرش ذي الجود والعفيف a ci yem wasixtu bi rabbil arsi sil joodi wal xafi amul wasixtu bi rabbil ar sisil joodi wal afi bañ a def hii yooyu yëpp ay coono la lay indil yow sa fond day jeex te doo doo doo dem waaw tël bi muy waxit maam day day feeñ ci njàng mi lool wasixtu bi rabbil har sisil joodi wal waaye moom moom it borom fond la laaj am xëtër yi boo tàmbalee boo tàmbalee mbir danga koy àggale boo ko mënul rek waroo koo jéem sax waaw jéemal ci keno bi rek waaw bu ko defee loolu dangeen koy jéem a jéem maam aw bi baamu bi. day mel bu bu bu jëwriñ teewee rek bëgg leeral day day xaw metti li li wax rek amul luñ ci mën a dolli day mel ne comme lim leeral loolu rek la boo daajee li ma judduwaat mooy daaj bi rek. comme kii ni muy daajee rek jëlul sax mu koy bàyyi ba xaab bi dem daal daanu su daajee su ma war suuf rek mën naa ànd moom foofu ba ni mu daanu maaxal Mustafa wallaahu maam xaraf yi buy ñëw rek day yomb li ma ciy seetlu mooy day mel day xaw ñoom ni ñu jëlalee day mel lu xaw a xaw a waa boo xawee bar rek day mel day ak teg bi tamit nañuy bàyyi foofu day metti waaw ni ñuy ni ñuy bàyyi foofu day metti واسكت برب العرسيس الجودي والغفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي واسكت برب العرسيس الجودي صابون صابون داجي ba ba ba mo xamal bi jeex sa bu ndaje ñaarul xab وسعت برب العرش الجهد والوفي araf yi tamit day mel pour daaj ñëw foofu araf yi mënta ñàkk comme ni Moussa mu doon wax xëcc bi noonu sil jodi wal wafi boo defee noonu da ngay dem dangay ngay dellu ci daaju milaadi bi te ñaari daaj bokkuñ ma al Mustafa wallahu li muxlidun ولي مخلد صفي لول دال lañ jotta ki bu ndaaje bu ñu daaj bu ne wasatu bi rabbil asis rek fofu ñi aw man ñu and ak mom banim daano wasatu bi rabbil asis al jodi wal afi مع المصطفى والله لي مخلد صفي day ëpp solo ci njàng mi boo bëggee jàng loo xam ne sa xëy na sa bat mu néew ko mën ngay ruubee njàng mi wala nga ci indi yeneen loo xam ne wala nga ci topp loo xam ne tamit di ko ci def di ko ci defaat di ko ci def loolu suñu bëggaan dox sax day mujj xaw a dewaat njàng mi daal wa sifa min kulli daali man alaytamada wa man aba له تريد سعسرة والندم سوما نيخي سوما نيوي ماي جانغات وصفا من كل دال من على تمدا ومن ومن أبى ومن أبى أتريد sasratin wanad wanada ñoom des fois bu léeg-léeg bu ñuy bu ñuy jeexal seen daaneel way boo xoolee ci daaj bu jub ci lay ci lay gën a feeñe noonu waaye daaj yi day bari ci biir njàng mi moo xooloon jës bi alam alam dañu koy commencé ak ak ak salima daa baleen jara ak ko daal day mel ne benn daaj du ci bokk léegi nag liñ ci dañ ci tënk lu gàtt rek léegi bo ci bo ci bo ci dégloo li da ngay da ngay demat ci lolu nga seetlu nga seetlu lolu waye li tax jang mi ci soirée lañ djublo wax moy araf yi na ñew sen sen sen sen ki deug deug day mel maam jangum sànnoos ci lañ gëna match jëm ah te jang mi dafa dafa dafa wuté jang njàngeen yooyu lool sax lu jar xam la buñ la ko léralé ba paré nga nga wàññee ko di jangat jangum sanos mom li du ñew di lay léral ni do ko deg ndax ñoom dañ ko dañ koo salfaañe bu dee bu dee bu dee 71 ñoom comme fi ñu fi ñu daaje walam yëkkoon fa lañu daaje alhamdu ñëwaat ñëwaat ba ba ba euh, nu tuddati fu ñu soppee daaj bi sax salimalaa badrin jala badrin jala 111 ak waskur daanaka kon day mel ne daaj bu njëkk bi li tàmbalee alhamdu ba ba ba ba ba yaara bi sa lii jeex benn daaj rek la dañuy yeesal rek bu dee bu dee sëñ Abdullahi dañ dañ koo daaj daaj daaju ñaareel bi comme bii ngeen di laaj nii bi ñëwee ba salleew salim sarmada ñu daaj ko fa dem ba walam yëkku ñu def ko daaj bu njëkk bi demaat ba salim ala baden jala ñu yeesal ñu defaat ko bañ tàmbalee woon waaw kon loolu dafa jara dafa jara xam ci njàngin yi ñun nag bi ñu leen leeral nag gis bu sëñ Abdullahi la moom mooy njàngum 78 waaw ñu bàyyi ci xel baax a baax a baax